alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokki jullit yi ñoo ngi delloog yéen ca waxtaanu maas googee nga xam ne amuñu moroom maas googee nga xam ne fa la yonent ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon dund seekal boobee nga xam ne mooy seekalum nit ñu baax ña ña jëloon seen diine jébbal ko yonent bi sallallahu alayhi wa mu di leen jàngal di leen yar di leen tarbiye ci alquran ak sunna xutba tey kon jëmul ci njàmbaar yu mag ya ak jaloore yu mag ya nga xam ne moom la saxaaba ya doon def jëmul ci coono yu metti ya jëmul ci xam-xam bu bari ba ak tasaare ga ak nañ ko doon dunde jëmul ci seen sàmm gu metti ga itam jëmul it ci seen dëddug àdduna ga waaye mi ngi jëm ci geneenu wet mu ngi jëm ci wetu ñi nga xam ne sunu boroom nattoo na leen bàkkaar teñ bokk ci saxaaba ya bi nga xamee ni lislaam ñëw na madina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ne loolu bu yàgg la ëpp na fukki siècle ak ñeent yonent bi alayhi salaatu wasalaam nam daan jëflanteeg saxaabaam yi mooy toog fa jàkka ji ñu wër ko mel ni weer boo xam ne biddiw yi dañ koo wër ci lëndëm ga muy jàngale di yar di jottali nit ñoo xam ne ñu ngi doon dund dund bu lëndëm mu war a leen a génn ci lëndëm boobu indi leen ci leer benn bés ci jàkka ji ñu toog saxaaba yi war ko fees dell ansaar yaag muhaajiroon ya boroom xam-xam yaag ñu baax ña ñépp toog di déglu sallallahu alayhi wa sallam ñu jekki-jekki seen soxna su muuru jigéen dugg ci jàkka ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen ko mu dugg di ñëw mën a tekk téye wax jëm doon wax saxaaba yi geesu seen ne dafa am kuy ñëw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne tekk soxna soo see continuer di dox ndànk ba agsi taxaw ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di nuyoo ne ko yow yonentum yàlla bi day man bakkaarum njaaloo daf maa gaar ma ñëw di wut ku ma laabal loolooy samay tànk foofu nan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def man naa jékki-jékki ne ah yéen ñi fi toog gaaw leen témoin yéen a ko déggandoo ndax su ko ñeent témoin rek mu wax ko ci kàddu boppam kon àtte ba dal nay dal mënoon naa def ni ñenn ñiy def suñ déggee ku mooy yàlla wala ku tàbbi ci bàkkaar mel ne dañ caa bég di ko tasaare waaye deful noona xar kanam ba dafa daldi soppiku mu mel ne ku mer mel ne ku am aw naqar daldi koy du móoyu mel ne déggut lim wax ndaw si jaaraat ca ñaareel bi yoon mu du móoyuwaat mu jaaraat ca ñetteel bi yoon ne ko dafa ëmb ci njaaloo kon jigéen a ko joo xam ne la shakka ne am na lu nekk ci xolam ci pas-pas ak ngëm boo xam ne moo defar xol ba ba tax mu feeñ ci cëram yi mu mën a to jóg seq yooyu jéego ndax ndaw si jamono yooyu dafa yaakaaroon ne laabal googi muy wut si mooy rekk ñu dóor ko ay yar walla ñu xas ko ci kanam nit ñi déedéet xamoon na ne li koy xaar moo di bakkanam bi ci boppam moo war a génn àdduna ndax ku sañewu woon la kon day lu rëy rëy rëy moo ko yëkkati tànk yu mag lay dox ña doonoon ay moy ña ak moy daloon ca saxaaba ya suñ leen di jàngat danuy dem ba yëg ni ñooña lañ yoroon ci ngëm yàlla dem nañ ba àgg ci daraja yi lu bari ci suñ nit ñu baax tey nga xam ne ñoom la def bu ñu leen tuddee ñu ne ku baax kaangook ñooñee ñu gàllankooroon ak mooy yàlla daloon leen ñooñee ñoo gën sun lu bari ci sun ñu baax ñu tey lu baree baree bari ci ñun tudde tey ay toppkati yàlla ak jaamukati yàlla ak dëddukati àdduna boo leen méngaleeg ñañ jàppoon ne dañoo tàbbi ci ak mooy yàlla ci jamono jooje xool seen histoire da rus ngir ngëm gën làmboo woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ko tontu gannaaw boo xamee ne ñetti yoon ndaw saa ngi baamtu rekk di wax li muy wax dal di wax ne nañ daal di taxawal ci moom ak tëb yàlla ndax amaana ndaw si li muy wax da koo xamut amaana dafa juum amaana am lënt dafa am te am lënt tax kat nga bañ a jàllal àtte ba moo gën nga jàllal àtte bi nga jàllal àtte ba ci am lënt maanaam lënt ñëw moo xam ne gàllankoor na la ba tax nga bàyyi àtte ba mu jàll bañ koo def loolu moo gën moo gën a dal xel moo gën a yàlla nga sukkandiku ci am lënt jàllale ab àtte kooku ab règle générale la boo xam ne lislaam da koo jàngale moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëbalut kenn muy gëstu ndaw soos yi wala mu naan nañ ma ko déglul wala nañ ma seetal ba xam lu mu doon dund lan mooy ay jikkoom ndax yooyu yépp dafay dugg ci gëstu mbóotum jàmbor te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koy tere mas naa taxaw wax ne mboolem yéen ñi nga xam ne dangeen a wax ne gëm ngeen ci seeni làmmiñ te ngëm àggagut ci seeni xol bàyyi leen jullit yi ngeen di jëw bàyyi leen awray jullit yi ngeen di topp ndax kat ku topp awray bokkum jullitam yàlla dana topp sa awra te ku yàlla topp sa awra nee na dana la toroxal donte sax ci sa biir kër ki daan wax loolu kon toppatoo wut loolu kenn mu seet awray jàmbur mu geesu ne ko demal demal gi da ngaa ëmb demal ba ba ngay am doom ndaw sa daal di dem bi mu demee ëmb diir ba mu ëmb dellusiwaat loola nag doon loo xam ne lu doy waar la la tax mu ne ko demal kooku taxawaayub lislaam la ndax dafa ëmb doom joo xam ne deful benn bàkkaar kon donte ëmb ba soriwut it kenn sañu ko ca rayaale kon lislaam moo jëkk a sàpp sàmm ñépp li ñuy wax xuquuqul insaan muy droit de xale ba nekk ci biir ba nga xam ne soreegul tax na atteb yàlla ñi téye ko lu ma juróom-ñeenti weer wéyaluñ ko ndax xaar xale boobu judd kon loolu mooy sàmm droit de l'homme wala droit de l'enfant wala droit ku juddoowut sax danañ jële ci loolu ni ngëm gu dëgër moo nekk ci xolum ndaw soosu ndax kat ba mu ne koo demal mënoon naa dem teggee fa bu faw te du dellusiwaat te du yàgg ka yàgg ba mu yebal ay nit di wax ne dem leen seetali ba ndaw si fi ma soog na ñëw kon yi da koy bàyyi rek mu jàll noona mu wéy waaye borom bi tabaraka wa taala dafa wax ci alxuraan ne ñu baax ñi am na ci ñoo xam ne su fekkee ne def nañ ñaaw téef ñu baax ni am na ci ay jëmm yoo xam ne saa bu leen ñaaw téef dale muy bàkkaar wala ñu tooñ seen bakkan mooy tooñ seen bopp saa bu leen dalee ñu fàttaliku yàlla te suñ fàttalikoo yàlla dal koy jégglu ndax xam nañ ne yàlla mooy jéggale bàkkaar nee na loola moo tax ñooñu duñ nuur mukk ci bàkkaar li feeg ñi ngi xam ne def nañ bàkkaar boobu saa buñ ko yëgee rek tuub soxna sa ëmb doom ja juróom-ñeenti weer doom ja judd guddi gëm juddoo bi mu xëyee ci suba si la ko laxas ci morso dikk ñëw fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yée xam taluwut delluwut gannaaw ci décision ba mu jëloon te du caagi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yónnee ab armée wala mu yónni polis ne leen dem leen indil ma ndaw sax ñi dem xëcc ko jële ko ci néegam déedéet moom ci boppam moo dikkal boppam ne yow yonent yàlla bi laabal ma ci njaaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool gone gi mu doon lu tuuti xool ba metti lool woyof ndax kooku mooy yonent bi nga xam ne yërmaandeem dafa dajoon lépp yërëmoon na ba yërëm mooykati yàlla yi yërëm ba yërëm picc yi yërëm ba yërëm mala yi sax yërëm sax ba yërëm ku dul jullit kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa borom bi daf ne ko <coughs> wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónniwuma la ludul nga doon yërmaande ci bindeef yi waxut ne ko ci jullit yi waaye ci bindeef yi kon noonu la meloon mu geesuwaat ko ne ko dellul boo demee nga nàmpal ko ba mu fer ndaw sa delluwaat këram kon foofu droit de l'enfant feeñaat na mënoon nañoo def àtte bi jël xale bi jox ko ku ko nàmpal ndax loolu lu siiwoon la ci société boobu jur doom ba noppi keneen nàmpal ko waaye deful noonu dana ko dellul boo demee nga nàmpal sa doom kon mu dellu bu ko neexee sañ naa toogaat ñaari at ndax nàmpal mën naa mat ñaari at ci lislaam kon loolu lépp wut ab délai boo xam ne ubbi bunt bi yombal ndax kat diir boobu ñuy ubbi yépp bu neexoon ndaw si mu dem toog tuub borom bi tabaraka wa taala mën na koo jéggal waaye ngëm gi ne ci xol bi moo ko bàyyiwul mu toog këram mu dellu nàmpal ko ba nga xamee ne ab nàmpam jeex na ba mën a lekkal boppam mu daldi fab gone ga ànd ak moom dikk leewu ko xale bi yor morceau mburu ci loxoom yaay ji jox ko loolu la mu ci jublu mooy waxaale yonent bi ne ko xale bi mën naa lekk léegi mu dellusiwaat ne ko tahir ni yaa rasulallah yow yonent yàlla bi laabal ma kon yonente bi sallallahu alayhi wa foofu la muy yëg kenn xamut lu mu doon ndaw seet la muy yëg kenn xamut lu mu doon yonente bi jël xale bi yoral ko boppam daa di laajte kan mooy yar jiriñ bi sàmm ko taxawu ko defar ko te ëllëg maag moom nooy bokk fu nekk ci àjjana kenn ci ansaar yi jóg fab xale bi kon taxawaay bu doy waar a ngoog bu daw yaram boo xam ne ndigalul yàlla moo taxaw moo tax kenn mënta dellu gannaaw yonent bi mënta dellu gannaaw ndaw si mënatu la dellu gannaaw kon ngëm gi ci xol moo xëcc nit foofu puus ko mu ñëw déclarer mbirum boppam te ngëm googu ci xol bi la nekk kon mënta génnaat ci diggante bi loolu moo tax ndaw soo si taxaw mel new doj loolu nag mooy yarub lislaam wa daru zahira al ismi wa na bu ko borom bi waxee bàyyi leen li feeñ ci bàkkaar ak la ca nëbbu loolu amul benn régime moo xam police la moo xam lu mu mën a doon ci àdduna li nga mën a tere nit ñi mooy li ngay gis ci bitti waaye la ca biir kooku lislaam rek moo mën a àgg ci di wax ne nit ki bul def nangam muy taxaw di ko bañ a def ndax biir ba lay defar bi liy xewee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen jël leen ndaw soosi ngeen takkal ko yéeréem ba mu dëgër ba dara du feeñ ci yéeréem ngeen yóbbu ko dem atte bi yàlla wax ngeen def ko ci moom ñu daal di def noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko defee ba àggal ñu ñëw yëgal ko ko mu ne nañ ko defar ñu defar ko mu ñëw taxaw di ko julleel boppam Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ah, yow yonentu bi yàlla bi da ngay jullee ku njaaloo alayhi wasalaam mu ne ko waat naa ci yàlla ne ndaw si tuub na tuub goo xam ne suñ ko séddale juróom-ñaar fukki nit ci waa Madina ñoo xam ne dañoo def ay bàkkaar tuub googu mën na leen a yóbbaale ndax xam nga ak tuub gu gën a sell nit ki jël bakkanam joxe ko ngir yàlla kon tuub gu gën a sell googu amul kon mbokki jullit yi loolu mooy lislaam force ak kàttan boo xam ne ci biir xol bi la nekk xamul ak doyadi waaye nag yërmaande joo xam ne su duggee ci xol bi ak nooy la àndal goo xam ne day dem ba nga jàpp sax kooku yërmaande ji tax na mu feebal waaye nag bu àtte yàlla taxawee nag feebal amatul kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diine la joo xam ne it bàkkaar lu mu rëy rëy bu borom tuubee borom bi tabaraka wa taala jéggal ko diine la joo xam ne defukaayu yiw la it yoo xam ne nit ki mën naa def aw yiw mu yëkkati ko ba mu ànd ak yonent bu yàlla place ca àjjana kon loolu mooy diine lislaam lii nag buñ ko xoolee danañ gis ne war nañ cee jàng ay leçons yu bari bokk na ca ne lislaam diine ju maandu la diine la ju maandu justice ci lislaam buñ koy wax dafa doon loo xam ne xàmmewul mag ak ndaw xàmmewul góor ak jigéen xàmmewul ku am daraja ak ku amul daraja bu xasee dikk kam tege ci kawam faaw daa war a tege ci kawam rek su tegewul ci kawam su boobaa luwaa tekkeetul dara amatul benn njëriñ ñépp war a yem ci kanam luwaa waaye lawaa luwaa suñ ko tuddee ñu ne am na ku mag koo xam ne loolu wër te tege ci kawam am na borom daraja am na boroom alal yoo xam ne bu ñëwee daa war a cëpp-cëpp ci kaw ñu néew doole ñu ñàkk solo su booba luwaa amatul ñu bañ ko bind moo gën kon mooy lislaam ñépp la yemale moo tax bañ dikkee wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw su sàcc ne ko ah kii kët dafa bokk ci banu maxsum ñu ne nu ñuy def ñu ne nañ yebal usaamatu bnu zeyd usaama mooy koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko bëggal boppam ñu ne ko demal nga tinu ndaw si ndax ñu bañ a dagg loxoom usaama ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ko ne ko ah, daa am ndaw su sàcc de soo xam ne ay yooni yooni yoon da koo def ba ñépp di ko jàmbat te nag daa bokk ci banu maxzum ñooñu bokk ci Quraysh muy giirug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam ci famille yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mer Usaamatu bnu Zaydin mi nga xam ne yonent bee ko bëggal boppam ne bis boobu yonent bi dafa mer ba mel ne xamatuma mu ne ma ndax dangay ñëw di tinu ci loo xam ne àtte yàlla la daal di ne ko waat naa ci yàlla ne Fatima bintu Muhammad sama doom man su sàccoon danaa dëgg loxoom kon loolu mooy lislaam amul ku mag ka amul ku ndaw ka amul kii mooy doomi président bi amul kii mooy rakki président wala xaritam képp koo xam ne tooñ nga tege na ci sa kaw rek yoon daa war a tege ci sa kaw noonu lay doxe su amatul maandu te amatul justice amatul dafay daal di sës mooy réew mu tas ñaareelu bind bi moo di lislaam ci boppam dafa bëgg sutura ci nit ki ki mooy yàlla suturaal boppam borom bi tabaraka wa taala mën na koo suturaal su jéggaloo sunu borom mën na koo jéggal xoola ndaw si nga xam ne dafa ñëw wax ne dafa njaaloo sonne ci noonu ngir ñu mën a teg atte bi ci kawam di dem di dellusiwaat di dem di dellusiwaat ba nga xam ne ay at ngir mu bëgg ñu teg loolu ci kawam te ndaw soosu xam nañ ne ginnaaw dafa ëmb am na góor gu ko ëmbal kenn laajut ku mu doon te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko wane ko ku mu doon mu ni ko diw sàngam ndax xam na ku mu doon waaye kenn waxul lu jëm ci waaje nga xam ne moo ëmbal ndaw si dañoo bàyyi mbir ma noonu ne cell ndax amaana ku mooy yàlla la koo xam ne tuub na yàlla jéggal na ko mu jeex moo tax kenn laaju ko kon àtteb lislaam ak yërmaandeem day feeñ foofu ci ne lislaam jógul di gëstu di seet nit ñi pour indi leen ngir man leen a mbugal wala mu rey leen wala mu dagg seeni loxo ka sutura tege ci kawam malaanum sutura di tege ci kawam lislaam du ko yëri du ko yëkkati du ko muri li fekk moo ñëwal boppam waxal boppam ne nii la wala naa la wala ay témoins yi gisal ko seen bopp li waral loolu moo di mooykati yàlla yi li nit ñu baree bari defe nga xam ne jàpp nañ ne rek képp ku xas dugg ci mooy yàlla naan na sàngara njaaloo na def na nangam ñu ne kooku alku na génn na ci diine ji dafa mel ne laa ilaha illallah amatu soxla ci xolam loolu njuumte la bari na ñoo xam ne ñi ngi nuur ci ak mooy yàlla te fekk yiw wu bari mi ngi ci seeni xol waaye dañoo génn koogut rek yiw wu bari mi ngi ci seeni xol xam nañ ci société bii nu nekk ñu bari ñoo xam ne dugg nañ ci ay mooy yàlla tuub génn ca loola borom bi tabaraka wa taala jubbanti leen ñu bokk ci ñu gën a baax ci nit ñi xam nañ fii nu toll nii ci ay nit ñoo xam ne amaana boo watul ñàkkut ñu may dégg ci ñoom ñoo xam ne xutba nañ fii ab xutba ci àqi ñi nga xam ne ñooy liggéeyloo nit ñi ak àqi ña nga xam ne ñoom lañuy ñuy liggéeyloo maanaam surga sa ak seeni patron xutba boobu ba mu jàllee ay patron ci seen bopp woo nañ ma ne ñoom de am nañu doon liggéey ci seen biir ñoo waaxul seen bopp ba ñëw ne leen ñoom am na luñ daan jël ci seen lañ leen doon dénk loola dañ ko ko bëgg a fay wala mu jéggal leen ko ñu won leen ne leen loola jegal lañ leen ko kon ba léegi xeet wi xeetu mbaax woow wi mi ngi fi jeexul jógu fi kon bul jàpp mukk ne ku tàbbi ci mooy yàlla wala mu nuur ca dafa doon koo xam ne alkure jeexal na déedéet buntu tuub bi mi ngi fi buntub mbaax a ngi fi te amaana sax jamono yam nekkee ci biir loolu téewut ak mbaax a ngi fi bari aana ay nit ñoo xam ne ci ak càggante la ñuy xëy di ci gont ay garam place ay caaxaan ak ay yoo xam ne yu tekkiwul dara la waaye su kenn ci ñoom taxawoon fi béréb dégg ku ŋàññi diine walla mu saaga ko wala mu doyadal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala kenn ci ay saxaabaam pare na pour xeex kooku ànd ak càggante yam nekk waaye loolu mun koo muñ kon jaadu na ci wootekati lislaam ak jàngalekati lislaam ñu jariñu ci mbaax googu nga xam ne imaan bu fekkee ma nga ca xol ba donte cër ya sàggan nañ imaan a nga ca xol ba ñuy fexe ba loola ñu yokk ko yëgal ko boroom fexe ba lam nekk ñu génne ko ca ndànk ci ak yeete ak xamal fexe ba mu ràññee xam la baax ak la baaxut xam li koy yàqal ak la baax ci moom mbëggeel googee mu làq ci biir te feeñut ci cër yi mu fexe ba mu feeñ ci cër yi ndax kat nit ki mën naa nekk ci lu mel noonu ba nopp mu feeñ ci cër yi am na koo xam ne dañ ko daan indi ci yonente bi sallallahu alayhi wa muy naan sàngara su naanee sàngara bu ñëwee rek ñu dóor ko mu demaat ba ëllëgee ñu indiwaat ko benn bés ñi di ko indi am ko ne kii de yàlla na ko yàlla rëbb laanahu llah ma akthar ma yukta bihi kii yàlla na ko yàlla rëbb bis bu ne rek ñu indi ko ñu koy dóor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ku leen rëbb seen mbokkum jullit ne leen maa alamu illa annahu yuhibu llah wa rasulah li ma xam ci moom de mooy ku bëgg yàlla la ku bëgg bu yonentam la xoolal loolu koo xam ne ma ngi naan sàngara ñi di ko dóor waaye teewul bëgg yàlla akub yonentam mu ngi ci xolom kon kooka la ca des mooy mbëggug yàlla googu ak yonent bi ñu won ko nan lay def ba mu feeñ ci cër yi soo yàkkamtee daal dina yàqu na daal koy atte sànni ko noon yi jël ko faf yàqal ko faf la nekkoon ci xol ba mën naa dem ba yàqu su ko defee dimbalante googu mooy doon loo xam ne lu jaatu la ñiy woote dañu war a li ñi sàggan li yasdaadu imaanan ngir ñu mën a dolliku ak yàlla waaye duñ leen xeex seen ngëm di dellu gannaaw ba faf ñu bàyyi diine su boobaa lor lay doon allahuma aiz al islaam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'daa ad-din allahuma farrij hamma al mahmumina min al muslimin wa nafis karb al makrubin waqdi dayna an al madinin washfi mardana wa marda al muslimin allahuma la tajcal ad-dunya akbara hammina wala mablaga cilmina wala ila an-naari masirana wajcal aljannata hiya daarana allahuma astur awratina wa amin rawatina wa anis wixshatana waxfadna min bayni aydina wa min xalfina wa an aymanina wa an shamailina wa min fawqina wa min taxtina ya rabbal alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulik